tëju waxtaan. waaw d'abord damay sant suñu borom. santaat bu baax a baax ndax li nu xaman ci Sénégal gisaat nañu ko moo doon toujours dañu am tiit ci Sénégal wante buñ demee rek ba ci biir jàmm day ñëwaat te yaakaar naa li nga xam ne def nañ ko fi démb ak tey gën na noo yëkkati parce que koy. def royukaay ci Afrique ci àdduna bi ci doxalinam ci wàllu politique waaye ci doxalinam diggante doomu aadama ak doom aadama kon bu ñu dajee fii tey démb ak tey nu waxtaan benn xeeroo amu benn ŋaayoo amu fi ku nekk génn sa xalaat je crois que loolu war na noo santaat suñu borom waaye tam sant Sénégal yi nga xam ne wax di yàlla def nañ lañ leen xamee woon bu loolu wéyee nag li ñu fi jëlee je crois que dal na parce que mbir mu nekk bu amee xel ak xalaat mooy tey ak tekk mooy la ciy génne waaye mbir am na fi rek il faut ñu rayante bopp il ñu toj déedéet am na lu am élection war nañ ko amal février mënul nekk pour ay jëg yoo xam ni xëy na duñ ci dellu si waaye nag xam nañ ne mënta nekk ñu waxtaan léegi nag waxtaan nañu ci génn ci waxtaan bi nga xam ne fi mu nekk nañ ko président ci nga xam ne ñun suñu waaka suñu yaa parce que président mooy jël suñu xalaat ñun li ñu jàpp ne moo nekk euh, jàmp na feeg mois d'avril ay élection di fi am seetaat nañu tam réewum jullit la ñu euh, ba nga xam ne ay day am ay li xam ne màgg kii ngi fi koora ngi fi ak rama euh, karemu kat yi yaa ngi fi ak yeneen yu fi am ñu loolu lépp bu ñu ko seetee ak li loi bi tënk jàpp nañ ne mois de juin baax na. mois de juin pour ñu dem ci ay. élection dem ci élection mooy loo xamante ne daal yaakaar na ah président nag mooy parce que proposition la commission wax nañu ña fa nekkoon wax nañ seen xalaat waaye nag président nag moom lañ koy jébbal. waaye noonu jàkkaar nañu daal li ñu seet. ak bu ñu bëggee tënku ci yoon. ak bëgg jàmm am. monsieur le ministre. Euh, le xoolal directeur. 2 juin daal yaakaar na ne effectivement bu ñu ko defee. Euh, mën nañoo respecté yoon wi waaye itam jàmm dina am ba ëllëg si bu ñu defee élection incha allah na mu daan demee démb ak bërki démb euh, mu demee noonu mooy Sénégal ànd ak dal nu nekkaat benn liggéey liggéey Sénégal. c'est le 2 juin qui est proposé. waaw proposition 2 2 juin daal. le 2 juin. le 2 juin alors loolu loolu